sering bi sering sëriñ Safa nee yang loolu la asalaam jàmm aleykum yàlla nekk ci yéen taala wa barakaatu ak yërmande yàlla ne loolu day mbàcce neex mu di kàddu yi muy wax di sebab kita dua kali sebab lagi orang kira hal kalima hal kalima hal nur jori jori nur jori jori mi ngi nuyu sëriñ bii gannaaw bu siyaare monsieur monsieur Mamadou Moutada nuroo boo xam ne mbégum murit yëpp lay war bu ñu naan soppeeku ñu baax yi tey jërë nga seetaloo tey jërë nga seetaloo ñu doon seetloo soppeeku ñu baax yi da ngay laajte ku Cheikh Mamadou Moustapha nekk moom suñu Fallu Mbàkke nga ne jàpp rek ku baax ku ne soppeeku rek waxuma ñu bokk ci ku baax ku ne soppeeku jëwriñu suñu Fallu Mbàkke ji moo ñu baax ñëpp ko sopp rawatina moom nag moom Baay Faal yi rawatina ñu wàkk si xabaar rawatina ñu wàkk si mu doon tabaar jël ay ngir jawriñ ji di sëriñ Abou Mbacke moom sëriñ Bale digg nag moom jëfin bi waxin bi jëfin bi loolu moo seet sama xol ñoo bokk doole waaye kii mooy jëriñu waaroon waaye góor gi moom bu ne soo demee Yafus faw nga jàmbaar boo tënee faw nga jëm boo mënee faw nga doon la nga naka taxawaayam rek yéen ñi may waxoon ak saa saa bu waxee dëgg itam bul xool caajaay nga jëriñoo dëgg ko wax rek li ma wax nag dëgg la. kon dina xool sama jëmm ji jëriñu leen dëkk yëpp am na koo xam ne barab boo xam ne ba fa àggee moom yii dafa am ay kilifa ñu jiitu ko fa nam bokkee da cee am loo xam ne su ma ko waxee da ngay loree te nit ku baax bu loroo jëriñuwul waaye bu loree itam jëriñuwul bañ a loru bañ a lore. am na koo xam ne ba nga koy duma. lalu ko. mbir moo xam ne da nga koo xool rek daanu. da koo xool rek daanu. kooku dina song mukk moom. doo ko song yéen itam nag. mbir moo xam ne. da nga koo xool rek daanu. ndax kooku naka sa mbor moom. Ah, du mën a mbooloo. te lalu te yar beeg yaram beeg teggee na rek ba yegg si ba tamit daa ko xam ne daa sëb jaay la fee yoon sax ca moom fee da suuf comme nam def mënu ko waaye di lu ko sabam nag ne ko nga damm too te kee koo tax loolu jëriñ ju baax ji rek ñoom ñoom suñu borom muus nu ci moom gën a yàggal dundal bii gën a yàggal wéram bi fan jigéen ñi ànd ab liggéey la boo xam ne mooy suñuy tool ndax ndigalu Sëriñ Tuubaa rek la ñu wax si yàlla ndigalu Sëriñ Tuubaa mooy suñuy tool rawatina ñu wax suñu rëy amul bis duñ yontu duñ xëy liggéey Sëriñ Tuubaa dong la waxtu wala nag am na ko am na ko moom ñu dem seeral nag cant ko na bàyyi ko man as ndaw rek laa suñu yoon bi man la sama jëriñ la di sama jëriñ dañu yoon bi nag mooy Serigne Fallou jëriñ suñu Lamine Tafal mooy itam muy jëriñ ñi jëriñu Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall muy Serigne Cheikh Fall mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha moom mooy Cheikh Serigne Cheikh Fall moom la di jëriñ ñi jëriñu Cheikh Fall bi di Cheikh Mouhamadou Moustapha ñu di ko waree suñu am di baal moom sëriñ Modou Diagne Ba ñu ñaan yàlla suñu borom yàggal seen dund te wéral leen ñoom ñëpp kii toog di Seex Mamadou Moustapha ñun murid yi ñoo ñoom suñu borom li Seex Mamadou Moustapha bëgg yàlla na ko dañoo gis nag lenn lu féete kaw loolu ne ko loolu la ñuy ñaan waaye ak ak jàmm ak jàmm rek la ak jàmm moom mën na am mukk lu weesu lum bëgg rek yàlla ko loolu ci neexal la xam sama la sëriñ bi nee na nee na mën na bëri yóbbu de nee na dégg na kàddu gi de